mbokk yi nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax amaat mbégte dajewaat ak yéen ci seen jotaayu majalis bi nga xamante ne moom mooy jotaayu asalafu ma alquran maa ngi démb nan lañ daan dundee alquranul karim ñu nekkoon ci taarixu duxuli alquranil karim fi Sénégal histoire dugguk alquranul karim fii ci réew mi te ñu waxoon leen alquran ak l'islam ñoom ñoo fi duggandoo l'islam yàgg lool ci sunu réew mi ajdaaduna aanaqu alquran wa dammu alquran fi sudurihim ñom ñu daldi akolat alquran daldi koy duggal ci seen xol yi bëgg ko lool euh seen jotaay bi di jotaay majalis la maison du Coran comme niñ leen ko waxe muy jotaayu asalaf ma alquran fu nek lañ koy defé tay nak ñu andi ko fi ci Sébi Xutaan ñu fekk fi sunu mag mu dalal ñu muy mam bubu Njaay borom Sébi Xutaan yalla na yàlla bur bi subhanahu wa taala sam ko ni mu dalale alquran yalla ko ko yàlla dalale ci dunya wa katalika fil janna waye sunu rak mohammed mustafa mu teewal fi la maison du cora jël si li nga xamne mom moy mooy bi yalla na yàlla barkel bu baax ñu nekkoon ci jawwul katatib li nga xamante ne moom mooy climat daare yi démb yan góorgóorlu ak yan jeego la sunu mag ñi daan def sunu maam yi yal na yàlla buur bi wa taala feyal ñu leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooñu gàttandul alquran daal di koy mokkal yokkuñ ca wàññiwuñ ca ba ñun ñu mën koo jot yal na yàlla feyal ñu leen eh, tey ñu war a andi li ñu tuddee al ijraat an nihaiya maanaam mooy jeego yu mujj ci xale bi ba mu mokalé alquranu karim ginnaaw ba mu défé ay at yu bari bari ci daara ja ñu wax leen ñaari tombe yo xamanteni yu am solo la ci daara yu ñëk yete mag ñi daan ci bàyyi xel lool moy jàngal xale bi liggéey xale bi dañ ko daan jàngal liggéey ba nga xamné mom su paré fu mu dem ci aduna bi rek da fay mëna tok ñaarël ba dañ koy yar mag ñi dañ daan yar nit ki bu baaxa baaxa baax comme niko imam Shafii waxee awwalul ilmi al adab njëlbeenu xam-xam mom moy yar kon mag ñi noné lañ ko daan doxale al ijraatu an-nihaiyah maanaam moom mooy jéego yu mujj ci wàllu mokkal alquranul karim bi ci jiitu mooy liñ tuddee marxalatu tasmia mooy jamonoy tari xale bi bi mu nekkee ci daara ji di tari bind bés bu nekk mu tari ñaari mbind ñetti bind waa muy tari waale bopp saaram ba keroog ñuy wax ne xale bi wàccee na alquran instant bi dafa wàccee ñu war a xool jéego yi ñuy def pour moom mu mokkal boobaa al ijraat yi day dugg ci li jiitu mooy tasmiul juz'i dafa am lu ñu tuddee ak tasmiul moom mooy tari par tari par xaaj bi xale bi sans départ mokkalam bés bu nekk mën na tari benn xisib wala bés bu nekk mu tari ñaari xisib bés bu nekk ñetti xisib su demee ba jeexal mu dooraat bés bu nekk muy tari juróomi xisib su demee ba jeexal mu dooraat bés bu nekk muy tari juróom ñaar xisib su demee ba jeexal mu dooraat bés bu nekk ba keroog muy tari fukki xisib ba nga xam ne xale bi dina mën a taxaw bés bi mu tari li nga xam ne mooy genn wala kaamir gi ba ñu xam ne xale bi pare na ñu tuddee moom muy tari par xaaj xale bi mokkal na alquranul karim bu baax mu door a ñëw ci li ñu tuddee a tasmiul kulli mu daal di ñëw tari kaamilu alquranul karim ba daal di koy jeexal waaye ci loolu su jeexalee lu baree bari ci daara yi démb du ñu bàyyi xale bi mu ñibbi dafa am leneen lu ñu koy jàngal mooy li ñu tuddee euh, euh, marxalatu kitaabati alquran ala al alwaax day dañ koy jàngal bindu alquranul karim moom lañ tuddee marxalatu bekki li mag ñi tuddee woon bekki euh, boobaa dafay toog bés bu nekk mu tari benn sumun maanaam euh, ñu jox ko sumun wala rubu wala nisif mu daal koy bind ci lool loolu noonu xale bi dañ koy jàngal li nga xamante ne moom mooy euh, xatt maanaam nan la ñuy bindee alquran li nga xam ne moom mooy ay ay qawaidam ñan ñooy tënke lan mooy régal yi ñu bindee alquranul karim ñaata façon bind moo am waaye ñu jàngal ko li nga xamante ne moom moo di ar rasm rasmul usmani nga xamante ne moom la ñuy bindee alquran xale bi lépp loo xamante ne moom mooy régal yi ci war ñom ñukoy jàngal mag ñi daal ci toggu muy bindi alquranul karim nga xamne bés bu nek mu daal bindi sumun wala bés bu nek mu bindi rubu wala bés bu nek amna ño xamne dañuy bindi ba nisif par bés waye am ño xamantene ne daan nañu yegg sax ba bés bu nek mu bindi li nga xamantene mom moy hizib kon yi day wone jeego yi nga xamantene mom la mag ñi daan def kon nga xamne xale bi suñ ko joxewon ci daara ja way juram daf ko fay bàyyi temps bi yep ñu mën ko def ci mom moo mag ñi da ngay gis ba legi so xole li ñu tuddé desitu mag ñi amna ño xamne ño fi nek ba legi ci jamono ji da ngay gis ne léeg-léeg mën nañ ñàkk di nafar wala di sonn comme ñun waaye seenu mokkal dafa dëgër lool dafa dëgër lool da ngay gis ne ñoom ku la ci gën a jëm mag rek waaye da ngay gis mu mokkal mokkal gu dëgër eh, mën nañ ci joxe misaal sunu gor gi nga xamante ne moom moo génne àdduna bu yàggul muy bàyyi Cheikh Seck fële ca Canaba ñu ngi koy eh, jaale waat bu baax a baax a baax waaye ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootu alquran yëpp kooku ci desitu la woon waaw li nga xamante ne moom mooy eh, tënk yi boole yi ma leen waxoon yi nga xamante ne moom mooy tënk yi mag ñi daan def ak juhud yi ñu daan def moom suñu almutashabihat yi nga xam ne moo nekk ci alquran nga xam ne lu muy nekk nekk mag سبحان الله سولكو تاريري رك كون خامني القران دا فاي تخ نيت كي دوناخ كوم نكو يونتبي صلى الله عليه وسلم وخون كو موكل القران متعه الله بعقله حتى يموت كو موكل القران يالا داف كوي مي دولي خل بكرك موي غيني ادنا kon loolu bokk na ci jéego yi nga xam ne moom la alquranul karim daan def kon tey jii ñaari marxala yi lañ doon andi bi ci jiitu moom mooy al marxalat al ijraatu nihaiya yu mujj yi pour xale bi mokkal alquranul karim suñ ci paree ñu ñëw muy marxala bekki mooy jamono yi nga xamante ne ci la xale bi di jàng li ñuy tuddee bindi alquranul karim te fii nga am na concours yuñ ciy def gis naa ne sax ren jii su ma teg nañ lu tolluk 6 waaye di woo mbokk yeeg jëmm yeeg soldaari alquran yi ñu gën leen dooleel bu baax a baax ñu xam ne loolu sunu maam yi fonkoon nañu ko lool ci daara démb yi daan nañ ci góorgóorlu bu baax baax waaye gën koo jox gëdd nga xam ne ndongo yëpp jar nañu dellu ca daara ya dem jàngi nanuy bindee alquranul karim kon bokk ñu ngi jaajëfal bu baax a baax kuréel ak sunu magi daara yi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu googe jël nuyo gépp ci loxoy ki nga xam ne moom mooy sunu magu daara Serigne Khadim ñu koy ziyaara bu baax waaye di ziyaara ñoom ñëpp yal na yàlla buur bi yombalal leen ko te ñëpp xam ne ku ni waa Touba ñoom jàmbar lañu lool lool lool lool ci wàllu googe moo tax ndong yu bari yu jóge foofu nga xam ne foo leen gis ci daal di eh, eh, békk kon tey ji asalafu ma alquran eh, muy suñu fukkeelu jotaay ak juróom-ñett lii lañ ci andi woon fàttaliku leen ci daaray démb yi moom mooy tax ñun tey jii nii wax dëgg fi yàlla ñu delloo mag ñi seen jukkal ñu xam ñoom it yan jéego lañ daan def lépp lu ci jub yàlla buur bi subhanahu wa taala la lu ci dëng seen ndongo la ci Amarul Fuuti yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu